bu ko aadamoo rek wuy yaay an nag yaayee de yaayee xel ci ñaar de parce que xam naa ne bu nee bu bu ci ay loxo moom dinañu directal ne animateurs yi ne woon ci plateau yi di jëw yeneen télé non non kay jëw mbasa lan doon mbasa mooy kan mbasa mooy directeur bu baax ah <laughs> moo jox biir biir bi ma yaakaar ne kebaab yàlla <laughs> très bien am nañu mbégte ak contentement dajeeti ak suñu ay téléspectateurs seen biir émission les ambianceurs ni ñu koy defee du lundi au jeudi béggal leen ci lépp loo xamante ni wàllum euh, ambiance la waaye jox leen itam humour boo xamante ni ko ci nekk fa nga toog ci sa kër di nga mën a fàtte sa stress loolu mooy ambianceur ni ngeen koy gisee nii noonu lay demee en dehors plateau bi ci biir plateau bi comme je j'ai l'habitude de le dire fii on se prend par la tête fii moom bi la ñuy xëy ak guddi gi ngoon les immatures en place Hmm. loolu la yàlla bëgg dama laa bëgg. waaw man fii di wootee ay. non si te di ko suba teel bi. moo tax kenn ñun de ñoo leen seetaan ñu fi liggéey <laughs> mais ñun la ñëpp yi seetaan loolu wax dëgg. ñan ngeen ba éviter leen ngeen ñëw. ah voilà mi ngi noonu nag. ambiance li ñëpp seetaan tey kontaan mais tey da nga da nga a garaaw. dama wàcc météo. sama téléphone laa wàcc. waaw tey moom xool nga météo léegi damay yeewu xool doo ko ñëw. moo gën a wóor da nga xool météo yow miy sol ñett beneen pirover ci suuf yooyu er gënal ci yu nga ne Papa Ndiaye pull la wala t-shirt. t-shirt lan pull la sol ci suuf da beneen pull bu orange vert noir. Ah. taxawal ne téléspectateur yi gis. li ngeen doon dégg moom moo doon jëw de ñun du ñun. li ngeen doon dégg yëpp moom xaaral ma teralati la ni ma lay terale saa su ne comme j'ai l'habitude de le faire. déjà clim baa ngi tax moom moo ngi ñax. xam nga am na yoo xam ne ci jaamu yàlla la bokk Mohamed. xaaral ma xaaral ma ma teralati sama xarit bi Mohamed. ma teral sama xarit bu ne naa la ci sama la deful nii sa dee xaj na ci baa ma dimbali la maa ngi lay siyaar maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay bu baax a baax Mara di mm-hmm. nuyu sunu invité yi nga xamante ni ñoom lañu ñu dalal tey mm-hmm. waaye di nuyu mbokk téléspectateurs yi bu baax a baax euh, ñi nekk ci hôpitaux yi sunu xel ci yéen bu baax a baax di leen ñaanal saay su ne ñi ngi nekk ci prison yi aussi pareil mm-hmm. tous les jours yéen a xel ndax yéen a tax ñuy jàkkaarloo ak euh, téléspectateurs yi comme ni ngeen ni ñu koy defee euh, mm. du lundi au jeudi waaye duñu fàtte ñi nga xamante ne aussi ñoo dëddu yal na yàlla yeesal yërmande bu baax a baax si ñoom di faire un gros coucou à ba ca Kaolack mm, suñu yaay ji suñu yaay ji tey moo baax nag démb damaa woon nee na Papa sa daaneelu démb bi sa tàggoo démb bi moo ko rey ñi nga génnee plateau bi loolu li ma jot ci ay <laughs> sama doom ji tey moom laay tëjal tëj bu amul fenn. bu lu kenn mës a gis. non sama péri nga nam. kon na ñëpp toog xaar tëj bi. non non non non tëj bi est-ce que ko fekke wu yaay <laughs> comme tubaab ni mu koy waxee le mur est toujours réservé pour la fin xam naa ne fin bi dina neex. mais est-ce naa ko fekk. mbaa waaw looloo jar a rek <laughs> parce que xam naa ne. la <laughs> dama dimbali. waaye itam ci li nga ni yaa su ci domaine bongo fi mu toll ni moom boo tuddee ay ay ay ay Babacar ak gars yooyu par force donc ko ci boole ay Karbala ak ñooñu ñoom ñëpp boo leen tuddee dangay ngay tudd par force Modou Konté beneen booy bi moom daw na moom booy bu fi coow na nooy beeg na dëgër Papa Ndiaye sa jarbaat boobu daw na léegi France laa koy gis Pape Chou. ñooñu ñoo ñoo ne ci man. ñibise. déedéet ñoo ne foofu. a ah, gis nga ko benn soirée ba. ah gis nga ko. ma ne ko ana natt ba mu ne ma ah ma ne ko ah, mu ne ma daa teggi moom moo teggi natt jàmbur ba pare daw. Pape Chou moom moo lekk natt jàmbur. natt Asia <laughs> ci kër gi de. <laughs> mais nag tey da ngaa faralaat. daanaka maanaam xam nañ dañoo gëj a indi bëngu. waaw bëngu gëj na fee ñëw. waaw ni Modou Konté ci la da nga ko. moo maani. eh. mooy seen baay. dib dund <laughs> dib dund gis nga. loolu a xewal ku ma ne sa baay comme coowul papaay doom moo yëngal réew mi maay sa papa doo sama papa yaay suñu baay doo suñu baay Modou Konté. mais moo ko mën nag du nuyoo sax. doo ko nekk ay maa leen di nuyu maa leen di kii loolu après la. booy yi armé bu yàgg. loolu après la fi ñu toll nii xoolal gëmm rek dóor xaañ xaañaat. may ndigal ndigal may ba dee du ndigal soogal ngal ah papa Njaay moo ma jox ndigal waay ndigal ndigal may ba dee du ndigal soogal lay walay salaam waa ngi ñëwaay ñëw ma jox ndigal waay ndigal ndigal may ba dee du ndigal soogal ngal mara jam bu dugg ci kër jàmbur ah. da nga naan koŋ-koŋ ñu ne la entrée nga daal di dugg dugg dugg dugg dugg dugg ba ca biir biir waay dëgg bismillah matak taasu dafa am Papa Ndiaye taasu dafa am kebetu dafa am dëgg waxantu dafa am damay taasu ay te rekkin du ko jëlal sa kaye jël sa bit lu ma wax du ma ci jaaral ay rëbam waaye dëgg la bokk diggu tool nag taxu ta yemu dagga ngëneel néegu yaay garab ku ko jëmbate du ko suuf eekeer eh, la ca bëgg sa yaaya booy moo ko roose tey nga feex lu ca bul jaay na soo jaay na meew xëy sàmmi ta amul ci dara jàll picc ngi jaayi picc wudu xëy tekkee am na ci ne du ma ko wayal sama way moo doo ko wayal duma ko wayal sama way wi doo ko wayal sunu way kay duma ko wayal sama way wi doo ko wayal sunu way way daa bàyyi ba mu neexee nga dagg ko aayaay jooju nga dagg loolu waroo ko waroo ko bàyyi mu konte loolu sama yëf la maa ko moom maara waaw ah. xam nga tey la tey dégg naa dëgg loolu tey la tey kon yow am nga sa yëf yu xale yi jël tamit waa xam nga dee leen waxtu waxtu sew yi vraiment bëgg yooyu non man moom maa ngi koo xam ne ragalu ma dara li ma bëgg a wax laay wax <laughs> ndax ginnaaw bi ñu sante yàlla nag julli ci yonent bi mm-hmm. sant sunuy ñaari waajur mm-hmm. di sant suma yaay di santaat suma yaay di ñaanal suma papa yàlla yërëm ko te xaare ko àjjana. amiin ah di la nuyu Mara suma xarit suma suma mag. Mm-hmm. nga nekk suma lépp. dëgg la bëgg ma nag. dëgg la di nuyu suma papa kii. Mm-hmm. li ma koy wax chaque jour. Mm-hmm. li may faral di wax nit papa sax bariwut waaye Ndiaye day suma papa ba pare bëgg ma. li mu wax léegi rek moom bu ma fu ma gis day sawar ci samay mbir ah di nuyu sama jigéen bi taxaw. nee naa la namatuma Rosa la femme de Ricardo Asiwaay. dëgg neexul dinaa ñëw ci moom loolu si kanam. moom lañ doon woy Rosa. dëgg neexul Ndiaye di nuyu waa Géejawaay bu ma jugee. surtout waa Géejawaay Gunaas. Gunaas di leen nuyu li may wax chaque jour drapeau zone bu la rek lay topp nit amul lu fi nga dëkk. dëgg la man Géejawaay laa bëgg. Mm-hmm. banlieue bi ñëpp su may xarit lañ damay dem fu ne. Mm-hmm. mais ragal féete day xañe wërsëg man Géejawaay laa juddoo Géejawaay laa yoroo fa laa màggee. foofu nga am. fa dëkk ndax ni ma mel ñoom ko def surtout waa Gunaas. Mm-hmm. ndax nag ki lay woo ci programme mu 5000 ba 10 000 ba cinquante mille ba cent mille. Mhm. kooku mënoo koo fàtte. Mhm. kon man nu ma mel waa Gunaas ñoo ma ko def di nuyu suma rakk yi ma àndal. Mhm. ñenn ñi sumay rakk la ñenn ñi sumay doom lañ kii suma doom la lat ko duñu ngay baayam. moo bokk ak as géwal ndey ak baay. moo ne ci cóol mi. kii as bi doon tëgg tànn biiru ndey bi. waaw kii ak xam la eh, ndaanaan kullu fadli. xaw ma ndax moom mën naa tëggam déedéet waaye as day. tey nga dégg dëgg Mara. Mara ànduma ak ay marché caaro ñàmb ak supame. wuy yaay. ànduma ak ay naxala sangak man bañ na ko sax du ma tëggee bongo yu bari ah. ku lu kuy bongo yuusoo la mën njaga si laa la mën hmm. ku lu kuy tamama njaay la mën ku kuy tëgg cool mi naay suukar mii moo la mën waaw mais courage dimbali sa kanam mu dël dama ànd ak moom tax ma ànd ak moom mooy ndaanaan hmm. bu ma naan hmm. ci ndaa lay naan dëgg la maanaam gëm nga ni morceau ba ba mu tàmbalee premier morceau bi mu def ba ba muy jeex noppiwul waaw loolu ndaanaan lu ko mën dëgg la mais fan jàngee fan la fan la fan nga jàngee bongo da nga ko doon wala da nga ko jàng waa ñun nag xam nga danoo yaroo ci biiri géwal mm-hmm. man tukulóor laa ca dobeju gana sa Mariam moo la. non non tukulóor loolu mënu la. ana Amadou déet kaay leen Amadou Ba eh, eh, moo. Ah. kaay leen Ndiaye. <laughs> Ah. booy yow mënoo nekk tukulóor waaye. eh du ko bandu. waaw Ndiaye. tukulóor laa man la ca dobeju gana sa Mariam moo la. Fatou sama yaay Tidiane Konté sama baay. Eh, bete bete ñaari yoon. waaw waaw ngéwéle soo duggee suma kër xam nga ndeysaan aar yàlla la siy xiir. Mm. nga bëgg ko. man damaa yoroo ci ay biir géwal mm. kay ku mel ni su du mag as géwal tey boo yoroo si biir géwal ngéwal da lay dugg mm-hmm. surtout nag talent buy nelaw ci yaw mu ngi ci yow de fa nga koy yee mu ngi ci yow kenn jàngalu ma taasu ko mën bokk ku koy kenn jàngalu ma ay wax mm-hmm. xam nga wax day leer mm-hmm. kenn jàngalu ma taasu kenn jàngalu ma li nga def tey nag mooy tey dangaa ñëw solu solu bu góore daal waa xam nga ñun nag. ñun bu ma waxee dañ leen a yab waaw mais li ngay def moo rapport man xam nga pour man kii ka la indi ñooñu rapport yu njëkk yi waaw wu tànkalang. waaw xam nga nag ay rapajo. <laughs> ñun jaay. waaw fu nu saf la nii génn. waaw tey xale yi bu ñu defoon ay yére olof nga ni maara day taali. Hmm. mais tey émission bi lii la laaj rek ñu def. relax waaw relax relax waxtaan. xam nga def ko waaw genre mbaxal bu tooy la rek ñu. <laughs> yëgaleen ci question aasi bi bi bi aasi dugal am solo la. aasi waaw. lool dama ko parce que loo doon taalibeem doo doon sëriñam. dama ko ciy sawar a tontu mais fan nga ko jàngee ba tax tey jii Modou Konté bu nee der ñëpp foog na doomi géwél la. waaw man nag yàlla dafa def ma am métier muy ñaw bi. waaw. tey bi dafa méngoog aar. dëgg la. mais yàgg naa fréquenté ay di xamante ak ñoom mais nag xam naa ne yàgg naa xam ne tamit talent mi ngi ci man. Hmm. mais pare mu woon pour wane ko. mais dama toog ba benn jour li ma arrivé nag mooy que sama benn jigéen bu ñuy wax maman amee mooy mooy mooy moo moo am xew mbuur woo ma ne ma dama leen di gis ngeen di taasantu fii di bongo affaire yooyu noonu boobu sax bongo woon ay paan la ñuy suul ak ay bool. comme Bool ni daan def. waaw man ak sama benn xarit bu ñuy wax papa Kombe ma koy nuyu. moom it mën a bongo bi papa maa ngi koy yaayam ñu def ay paan bool maman ne ma damaa dañ maa may njëkkee mbuur dama leen a bëgg a yóbbu. ma daal di njëkk si la kii am na fit de ñun du ñu ay artiste moom am fit ne daf ñuy engagé daf ñuy yóbbu. Mm. kii tamit daa am fit moo fit ñëpp ne ma nañ dem. ma ne ko ah mu ne waaw mu ne ma nañ dem ñu yóbbu paan bool. Mm. suul ko dem mbuur maara dëbb ko ba mu mokk nag xam nga nag xaalis. waaw ñu dem xew ma xaalis bi bari. waaw nga ne der xaalis bi commencé génn rek nga aalu. ma ne njëkk si la yëf yi neex na de. <laughs> ma ne ko yëf yi neex na de fi mu nii ah. nit ñi xamee nañ ñu artistes yi. Mm-hmm. te ñu ngi dem ci programme yi suñ tëboon tëb dugg ci art tamit. Mm-hmm. duñ ñu ko wax dara kuñ ci mën a jàppale dañ ciy jàppale ku ñu mënul jàppale toog duñ seetaan. Mm-hmm. waaye yow amal gëm-gëm bi rek bu ñu duggee ci art. dinañ ci réussir. billaahi wallaahi barki yàlla ji fàllu. waaw léegi sa premier programme moo ngi nii. yaa ngi xew mi ñëpp toog suul nañ boole ak paani musoo taas si biir mbooloo mi. waaw ñëpp toog nañ yow la ñuy déglu nga ne der loo wax. ma i der. moom maa njëkk daf ne noo ko duggee woon. ànd ak loo wax maman njëkkee lan ko mayoon. waaw ma jékki-jékki daan ne saalañ saalañ. maman ñëw na. doone ci wàllu lëloo ba tëjee. <laughs> mu bàyyi ñëw. ku la bàyyi ñëw noonu. lanu lanu lanu lanu commencé. Ah. di def. Ndiaye ak lay teral waaye suma papa ji. Eh, Ndiaye teral na la dégg laa bëgg. yàgg na koo def nag. Serigne yi ñëw na. yàgg na koo def. Ah, waaye nag. maanaam. waaw suma papa la yàgg na koo def. ndeysaan. noon nga ma koy defalee noon noonu noonu lay demee sax ndax fii lu ma wax rek sama kër la. Hmm, dëgg la ndax nag des fois ma gis la nga dugal ay affiche ma ne la Mara. Hmm. na ñëpp def. Hmm. man heure ma bëggee ñëw ci kër gi damay. da ngay ñëw dëgg la fii sa kër ndax yaag Njaay mi da ngeen ma fee yaatal. Njaay noonu la ñu commencé. ñu ñibbisi billaahi wallaahi wal kitaabi ñu commencé. ndeysaan après atelier bi tëj. non atelier bi tëjul. atelier bi tëjul de. yaa ngi maa ngi ñaw ba léegi nii sama kër ba tey. ok yaa ngi dégg maa ngi ñëw samay client dañ may fekk samay kër. Ah. te su ma daggee nag nga ni maara day taali. loolu damay ñaw lu rafet. ñett laa bëgg damaa bëgg nga boole bongo yi. Mm. ak atelier bi ak leneen. xam nga fa la àdduna toll. dama lay wax benn affaire bu garaaw tey. Mm-hmm. naay suukar mii. waaw fi léegi léegi léegi bu sa oto paanoon nii barke Alaaji Fàllu balaa ngaa ñëw mu dépanne ko. ñu dee métier. boo weddee laajal Covid 19. nay leer. <laughs> ay bi corona ñëwee. yaa may dégg bañ denc bongo yi ñëpp am problème. mi prêt à la yor ñaw moo tax sol na ay jiw yu rafet. waaw noonu la mën a saag yi rafet yi ci réew mi ñaga si la mi koy defar. yaa ilaaha waaye nag kër yu baax yi ci baax yi nag yow ci yow yuusu mi koy tabax. moo taxit loxo kon xale yi ñëpp am métier. waaw loolu ay mbasin yu dëgër. maçon xam nga xam nga ku nekk ak sa métier. dëgg la te nit da am métier. Mm. ñii seen yaay dañ ma leen a dénk. Mm. ndax damay damay jàllale benn message bu am solo. Mm. kii danoo bokk kër muy suma seex. moom sax jëlale naa ko. di nuyu sunu yaay Ndeye Assou ak Fat Jaxate ndax ñoom nu nu mel ñoo nu ko def. ndax nit ki amoo lu dul say kilifa njaay waaye kii yaayam daf ma ko dénk mu nekk nit ku baax ajaa yaayam dénku ma ko mu ñëw ci man te nag diggante mbaaw ak géejawaay sore na waaye nag nit ku la wóolu rekk la wóolu Youssou ñëw ci man te yàqu ci dara kii magam as géwal dénk ma ko mën a tëgg piir barki Serigne lu Mbacke day dem Maroc di ñëw heure bu ñëwee barki Alaaji Fallou Mbacke du ma namm dara. muy suma doom di suma xarit. kenn ku ci nekk papa nga may wooyee te rusoo ma kaa wooyee xam nga lu tax. Mm-hmm. cër ma jox la. man ci ñoom. bi mu fii ñëw daaw ñii laa àndal. Mm. yow yàgg nga maa gis ñii rek lay àndal. njaay man rek la yàlla may su may tëggi programme ku ci nekk dama lay yee amul woote foo nekk. lan mooy loolu ngeen bokk génn kër. waaw man du ma woote. ah bon waaw ku ci bokk benn kër. waaw dama lay tàpp tàppal. jeeg jay togg yërëm naa leen de. ma doom jay togg. jeeg jay togg am nañ problème. maanaam ñii li ñuy góngoo bu dee noonu la ñuy lekkee. non kaay kaay nag kaseera wàllum togg ba ah. daa yéwén muy daba su ma dinañ ci dellu si léegi dañuy demaat ci beneen morceau fi nga nekk noonu téel ma ko aasi am na beneen question soo daaneele rek aasi pëtëxal dañ demaat ci beneen morceau nga nga kii parce ambiance tër la wax damaa bëgg ñuy waxtaan di ambiance waaye nag Ndiaye waaw maanaam Thiam lii dama koy may muy mun a may mun a man Maymuna madame Camara. ok pour man Maymuna Ndour Faye mi ci télé bi nga madame Camara xam nga Ndiaye nit amoo lu dul say géer yu baax. waaw mais am ñun loolu la ñu am ci ñoom. nit amoo lu dul ku lay defal teraanga te kii Maymuna mi. Mm. madame Camara day nekk nit ku baax. Mm. barki Alaaji Fàllu Mbàkke ku ñuy wax Ndeye Ndiaye moom ko présenté. ci présenté boo xamante ni. non Ndeye Ndiaye sama benn ah, jigéen ah séeri mama moo ma ko présenté mu nekk nit ku baax ku modeste. di la teral di yëkkati ay teraangaam di ma jox. waaw ah, léegi wooy ko yàlla tax wooy ko mu teral la. madame may mun. a yaay boole. a a a a a. may mun a nduur fay ah, ngay wax mën naa laa may à tout moment mën naa summi tubéy ji ma sol may la ko. lu ne mën naa xew te lii nag. kër Bongo daf ne tey ma bàkk ku baax ku sagal ndeyam. man ma ni may mun na ku tax nga baax ku tax nga baax sa yaay sa yaay moo la yar ba nga toll nii ki la teg loxo loxo ba nga nañu leen fii du garabu pil ci law ba du ko gor yàlla noo fi na xoolal dana ko wayal way ko wan na ni duma ko sewal way ko muy mun a nduur jigéenu Papa jigéenu Mara Jam cam de ndab bokkar ca babel de ba cam mooy borom liliwaas xale soo të të të. ah ah ah taasu bëgg naa ci inspiration bëgg naa ci ay paroles ambiance bi dëgg la mais bëgg taasu bam parole Mara kii kii ndaanal la de. nee ndaanal la. nga ne ko ki waxtaan bii di ñëw. Babacar Bongo. waaw dama koy nuyuwaale nag moom suma xarit la. sa nawle la. waa man nag aw ma xarit Bongo maan. ok xam nga lu tax. waaw. teesante yi ci réew mi dama cee xajut. Hmm. defante yi ci réew mi dama cee xajut. Hmm. man yàlla xam na ni yow heure bu ma woowee sax dama naan la maa ngi sama biir nekk tëdd. dëgg la maag ñii. Hmm. lu nuy créé ñu créé ko te luy xew ci biir néeg ba lay xewee. ñu génnee ko mu def bal dem. mais Babacar Bongo suma xarit la. Mm. ma toog fii ci télé bi di ko wax. suma nit la Babacar lay fekk programme. xarit bu foo na nga am. non baal jàmbur. baal jàmbur ak foo. ku neex te baax. <laughs> non baaxam. a foo. man. damay tooñ damay sama moroomu artiste la ragal féete day xañe wërsëg. dëgg la waaye Babacar Ndiaye lay fekk ci barki Seydina Mohamed mu yëg ay junni bari di mu ko may. barki Dembo Ndiaye la ci mujj day tëgg benn ene biir Géejawaay. Mm-hmm. na ma compté maa ngi ci wetu koñ fa laay tëggee ene ñëwal. ba mm. ñëw sama heure def jot mu yëkkati jox micro bi jox ma. Mhm. barki Seydina Mohamed. may wax ak borom xew mi mu xaw ibbi saagam yëkkati ay junni yu bari di ma teral. te nit bu la defalee lu baax wax ko. yow yow yow ñoom ñëpp laa sekkal jàmm nag. Mhm. waaye moom day suma xarit. mais pourquoi relation am ak seen bongomaan yi ku mel ni Karbala. suma xarit maanaam fréquenté laa mënul. fréquenté teg sama morom bongoom. Mhm. man sama doom yi rek doy nañ ma sëkk. xam nga tax du ma fréquenté. li ma wax léegi léegi xajuma ci teesante man maay seul bongo man boo dul dégg ci dara man du ma def vidéo gaarawaale kenn. du ma def vidéo di tàndaas kenn te nag ku ma ci dajal. ah loolu nag ci musique ci ci show yooyu ci la bokk. man maanaam léeg-léeg nga def sa vidéo. waaye dañu ma wax la ay ay par exemple ay comme booy boobu ni mu ko doon defee ay bind loo ma sàkk loo ma ak doo ma teree dund yooyu. waaw man ay pic ma ñëw Ndiaye ab mot loo laa su ma dajee ak yow ci biir géew. Ah. su ma dajee ak ci biir géew. foofu la defante sa fee. la ok te nag defante bi fi muy jógee mooy. non ñun waa Pikine ñoo soxla ñun waa Pikine ñoo soxla woon Modou Lo <laughs> wax nga ba dugal sa bopp plateau bi. Ah. xam tax muy loolu di am solo. mais loolu mooy yoon. man loo ma munti jaay. Hmm. suñu dajee ci géew dinaa ko jënd. du ma hmm. dajeeg sama moromu artiste di raf. mbaa may tiit. da ngaa mën. te fu ma dem dan maa woo. mën rek doole la moo tax ñoo koo ci dajal na tiit. da ngaa góore ñun ay taalibe sëñ Tuubaa lañ. da man sëñ Fallou rek laa bëgg hmm. lu ma am nag moomu ko may. bokk na ci xam nga lu tax Ndiaye ma insisté. Mhm. ndax nag ku la loo moo la feesloo. Alaaji Fàllu man bañ ko sama groupe sax sëñ Fàllu laa ko tuddee. amul leneen. groupe sopp sëñ Fàllu. moo tax muy dox. maam Saala gi nii sëñ Saaliw lañ ko tuddee borom njurul jàpp ndal xabaan borom daaroog la gën. Mhm. borom njawaan ba coroon xëy ga. Mhm. léegi nag Modou. Ah, waaw doo ko mën de. man par man ko Ndiaye xam naa ak ñeneen ñuy seetaan ñu ñu tombé may gisee. pourquoi man li ma gis laax la laay wax de ak talent bi na ci yow pourquoi nga dëggal sa bopp ci géemu musique sénégalais chaque trois ma clip wala chaque deux mois clip ak ak kii bi nga am quoi talent bi na ci yow. dëgg la xam nga fi nga ñëw noonu am na solo trop parce que ñun dañuy ay ndaw rek. waaw di liggéey te lépp lu nu am nag ñoo ko defal sunu bopp. waaye nag comme li ñuy wax rek li nga wax ne damay jàllale benn message géejawaay ba nu dëkk. waaw nanu gees artistes yi fa ne. di leen dooleel di leen jàppale. monsieur le maire mi ngi fa tey ku xewle di nga dem ci moom. mu lay teral muy Boy Deba ñu koy nuyu. ah ay Lat Diop ba nga fa. ay Aline Sall keneen ak keneen mais tey da ciy baax ñuy dooleel artiste su géejawaay yi. muy taasukat bi muy waykat beeg ñëpp. comme li nga wax léegi tey amuñu clip bëgg na noo am clip amaguñu single bëgg na noo am single waaye nag dañuy ay nit yoo xam ne nag yàqamti dara. mais Modou li am ci géew bi est-ce que mënoo ci am loo cof di ko denc ba waaw xam naa ko de na ñeneen ñu la bëgg na ci yeneen dëkk. Mm. defee mu dugg ci YouTube bi dina jéggi frontière yi. Mm. waaw dëgg la mais yàlla boole nañu ak ay nit ñu baax. Mm-hmm. tey ku mel ni Adja Chéri Khadim Gueye borom Atlanta. waaw daf ñuy teral. Atlanta la dëkk. ajaa mooy Chéri Khadim Gueye. waaw Khadim Raku Ndeye Gueye. Eh, maa ko xam. kenn du moom. maa ko xam. borom ñaari galon yi waaw. kooku mooy borom ñaari galon yi mooy eh, borom Atlanta actuellement nii sax mi ngi Sénégal ñëw na ma koy nuyu waaw. yaa ngi sama numéro. maa ngi sa numéro. nee ko sa photo rek la <laughs> kooku day nit ku baax. Mm-hmm. ah ah nga am ku ci mel ni ay xadi daraame. Mm-hmm. borom parcelle. di ma dooleel di ma di yëkkati ay teraanga di la jox. waaw kon maanaam nañ ci jàpp na clip ma gis xam nga. waaw xadi daraame day nit ku baax. su ma toogee fii dina ko wax pour clip bi génn léegi kon jaay kon xadi daraame. Adja borom Atlanta. ak Maymuna madame Camara. waaw single bee kili bi mu ngi seen loxo. très bien très bien. Euh, lan moo tax du ñu la gis nga def ay spectacle woote ci boîte yi def sa ay soirée wala sa ay nawle artiste bu ñu tëggee yaa ngi ci banlieue bi tey dëkk ak ay ndaanaan Thiat Seck Pagaye Mbaye Djibi Guèye pourquoi du la gis ci seen ay soirée wala seen ay seen ay. jubóo wala ñoom. ankay. ah. Ndiaye ma doon laaj rek non. xam nga sa laaj am na importance sax man nag yàlla daa def sikku ma mm-hmm. xam nga dafa am artiste yoo xam ne dañoo sikk mm-hmm. man sikku ma mm-hmm. man boo ma séenee sax samay bëñ ngay ñëkk séen seen te billaahi ñoom ñoo ñëpp ñi mu tudd nii ku ma ci dajel billaahi wallaahi wa taalaay dañuy waxante lu baax te dama dañuy demalante nag dañuy demalante des fois damay yëg seeni seen tamit ñu ma jox seeni micro man ñëpp laay demal maara man artiste mun na xewle sax ban ma ko yëgal ma toog def ma dara ma dem xanaa nag ma jàpp man su ma mais pour demal nit ñi aw ma problème boobu. moo tax des fois su may wootee samay anniversaire la ak yooyu noonu sax damay gis artistes yëpp ñëw. moo tax du ma ko nangoo def weekend. da ngaa yaru. billaay wallaay. da ngaa yaru. Mm-hmm. ay Samba Diar ak ay Jibi ay Pekaay Mbaye ñoom ñëpp sumay nit lañ ma jaagaak ñoom ñëpp sumay nit lañ. Mm-hmm. ah may nuyu suma yaay Bidjo alias Soxor Kelle Séeri Majji Majji. Mm-hmm. dégg nekk suma yaay nekk nit ku baax. Ah, waaye maaji maaji waay yi. maaji maaji maaji xew waaw maaji maaji <laughs> ah ca kaw. su ma yaay la ndax moom si ñi may dooleel ci la bokk. naan la ci réew mi Ndeye Gueye naan la ci réew mi. loolu ko ñëpp xam. xamal naan la ci réew mi de. moom su ma nit la. maaraam yi xam na ci dara. soo amee genre nit yu mel noonu dañu lay dañu lay dooleel. Mm. mais man ñëpp laay demal. ñëpp laay si moom bëriwuñu sikk ñaare ci sikk daam seen ak pakaay mbay ay waay waaw ñaar rek ci sikk. bàyyi daam bakaay day jël samay du ko wax daam seen di sàcc samay dàll te du ko wax ñaar rek sikki ñaar ñooñu lañ. waaye nag da ngaa tudd ñaari ndaanaan man. ay ndaanaan la dogo boo yooyu ay ndaanaan waaw non dogo day ndaanaan. mbokkum yaa maaraam te lu mu wax du ko waxaat. dëgg la ragal féete day xañe wërsëg Papa Ndiaye te nit ki boo ko gisee muy def lu nice apprécier ko ko. des fois di gis nit di def dara nga soxoree ko ko wala nga iñaanee ko wax. Mm-hmm. mais pekaay day def lu rafet. Mm-hmm. daam seen tamit noonu. mais pourquoi pas nga war a dem envers eux dem ci ñoom. Euh, def ak ñoom non si war na mën a nekk parce que tamit ñun dañuy raam di dem rek. Mhm. li ma wax léegi léegi léegi. raam bi yàggul tu as fait ci aar bi. non aar nag wax dëgg yàlla. def na ni euh, yàggaguñ ci. de ay 60 ans rek la. man daaw bi may bi may bi non non may ñëw ci kër gi ak léegi. waaw ah, un rek lay mat. ñun yàggaguñ ci aar. un waaw. déggoo li ma wax ko découvrir pas ci bi ñu euh, commencé ambianceur. moom bokk na ci njëkk a ñëw ci numéro ambianceur les premiers numéros de de moom bokk na ci njëkk ñëw. donc waaye xale bi su judd woon yaa ngi dox fu mu nii. war na dugg war na dugg ci affaire a fukki at sax dëgg la dama ànd ak Asia war na dugg cours des grands ba pare dafa am man dafa am ñoo xamante ne c'est-à-dire yàgg nañ ci def nañ ci 10 ans wala plus de 10 ans fu mu toll nii est-ce que gënoo leen fël sax laay wax waa ndax xam nga la moo indi fii gëm-gëm mm-hmm. ak nekkul fu nu jot rek dem des ñi dañ ciy xuloog man nit daf ma woo sax fay ma prix boo xamante ne nii mm-hmm. billaahi wallaahi wal kitaabi dañuy toog suñu poste dara du ci nekk mais du ma dem mm-hmm. nit yaay valoriser sa bopp. dëgg la nit yaay may sa bopp gëm-gëm. Mm. man tey boo gisee ma buuxante ba ak sa fii su ma rakk yi ñoo may doole ak sama gëm-gëm. Mm-hmm. man parce que tey yaakaaroon naa sax tey benn instant du ñu yegg si fii bongomaan yi nga xam ne nii moom la ñuy la ñuy tudd jamono juñ toll nii. Mm-hmm. mais kenn ku ci nekk rek boo dajeeg moom da ngay xam ne carrément yow am na loo trouvé ba yegg si fii ci ñoom. Mm. mais gëm-gëm la ak liggéey ak créer. Mm-hmm. créer baax trop damay jàllale message boobu gis nga. nekkul mooy créer artiste moom waaw mais Ndiaye réew mi dafa fi nekk loo xamante ne nii dafa métti dafa am bongo man yoo xam ne dañ dañ ma soof ci benn affaire. Eh. ah waaw ah, waaw ah, waaw tere ah, xaaral ma teral la. yeggaleel dama lay teral. Ndiaye li nga dafa am bongo man dañ ma soof parce que tey non du tooñ sax bu ko xeeb. du tooñ. teral laa teral ko Ndiaye sama papa ji <laughs> maanaam ñam lancel pigi na xam nga lu tax ma wax loolu lan la soofee <laughs> xam nga lu ma soofee njaay mhm. da gis koo xamante ni moomul moomaanul waaw créé wul waaw tey da ngay fekk njaay njaay bu ne laay laaxay la laa laay laaxay la laa bi nga yokk ci dara rek mu siiw fekk njaay ko waxoon nga ne fekk yaa ko moom gars yi dañuy fekk benn affaire ñu yokk ci benn affaire daan na ñoom ñoo ko moom maaraam yi àtte na fi suus ba sonn koo àtte ba mu mujj gi man noppi man ba léegi mënu xam kan moo moom. waa léegi xamoo kii dem na ba ay temps maa na ko bàyyi loolu parce que xamul tax su génnee dañ koy jaawale met waa léegi man ko foogoon ndax atte waa koñ bi kaay leen xool fay mais su ma neexee ma indi war ko ko bi kaay xool ni ma ko waxee woon ay boo xool nga ko wax tamit non problème yaa dafa defal nànk man waxee ko defee moom ni ma ko waxee woon ñaar ñii jooma ci awu borom xew bi day oto bi day ñëw corné ma naan waa koñ bi kaay leen xool ñii naan ma ku ci génnul dangaa soxor déedéet ñun ko noonu de ngeen ko defee woon rek lañ ko bëgg a déggee ak gaay yaa may dégg waaw ko damay jékki-jékki daan oto dafa korne garmi dafa yegsi te bu yegsee dinañ ko duggal mu neex a neex waa bi kay leen xool ku ci génnul danga soxor waa bi kay leen xool ku ci génnul danga soxor lay waa koñ garmi yegsi na koy jaay. dama ne aaya. ay aaya bi mbam kenn moomu ko. gaa yaa ko jël dugal kon mi ngi noonu li may wax mi ngi ñëw. aaya mhm. bi mbam kenn moomu ko ñu ngi koy jël di ko daaneel di ko def ay senkom mais tey waa koñ bi kaa leen xool ñi naa ma ku ci génnul da ngaa soxor mais waa koñ bi a leen xool te loolu bi ma koy wax billahi njaay maa ngi doog a débuté. mais man dama daanu parce que yow tem nga ko def. da nga ko def tem. te dégg nga li ma wax léegi léegi génnul da ngaa soxor moo ma daaneel. ba pare li ma njëkk wax dama ne oto dafa yegsi. waaw oto dafa corné. waaw garmi daal di yegsi. waaw te bu ñëwee dinañ ko dugal ba mu neex. loolu laa ma ne waa koñ bi kaay leen xool Youssou naan ma ku ci génnul da ngaa soxor. Mm-hmm. ndax affaire yi da ciy baax ngay. man balaa ma mu doon dégg naa la mu doon dem ñun balaa ñëw nelaw 5 heures jot. di matin damaa dégg ngay faral benn wax naan artiste balaa mu mën a créer bësal jot. dëgg la wala mu leer nàññ la. wax jooju noonu dama koy capturé. Ah, parce que guddi gi danaan teg ci ngay wër nag. lépp danaan selaw. waaw ah, ci ngay wër. barki Sëriñ Fàllu Mbàkke. ci ngay wër. des fois ñiy nelaw mag kii kese ñu nekk ci ci ci ci guddi gi. Mm. yuusu naan ma nangam ak nangam ba pare man ñii di ànd ak man ku ma ci jox benn affaire dama koy jël. Mm. xaw ma la moo ci baax. Mm. naay day xalaat benn affaire ci bàq yi jékki-jékki indi ko ma njaay tamit noonu njaga xalaat dara ci béngoo yi wala senkom yuusu indi rek ma booleeg li ma yor mais loolu tax ngeen doon groupe nag yaa may dégg moo tax ngeen doon groupe nga damaa seetlu sax déggoo bi ñu sànq bi leen a jaaxal jaaxal taxaw mm-hmm. nit booy ànd ak ñoom da ngay déggoo ñoom mm-hmm. Mm-hmm. complicité du dëgg ñoom fu ma jëlee xam nan fu may daanelee xam nan loolu da ci am mais loolu mooy importance dëkk bi ngeen dëkk parce que dëkk bi ngeen dëkk di toog di créer ndoo ensemble moo leen di may complicité boobu noonu la demee moo tax liggéey rek am solo njaay mhm. man nag benn conseil laa am tey benn conseil du question. Mhm. dëgg la naam bëgg naa kuy valoriser boppam mais yenn saa yi am ñu la bëgg te loxo jotul ginnaaw day ci jàpp. waaw ndax jiw boo dem lu la fay lu mu tuut tuut di fa am leneen lu say luy sa wërsëg ba pare xamee fa keneen. Mhm. non dëgg la mais nag Sénégalais kaay ma wax boo leen tàmbalee loolu Ndiaye. doo am kase de non man moom kii man ak kii moom maa gën a métti fu est ne gis naa ay nit yu mere ne xamal la leen mere. waaw dañ lay soxla programme artistes yi ñu ne waaw fi ma jaar ak moom ni ma mel ak moom lu tax moom may boole manager te nit dafa baax boo nekkee ci benn métier amateur ci début bi mais ngay dem ba tool boo xam day am ñu nekk sa ginnaaw nag. waaye maanaam. comprendre nga léegi nag boo bëggee cachet ba nga daan géwél daaw ak daawaati jéeg bu jógee xale yi jóg bokk rek damaa li koy topp. bu géwél ba pare joxe la mu yor toog day métti. moo du compte. waxaale gi dem daa ñu lay jàppal fii loolu foo ñu koy xam nit nit nga comprendre sa bopp dama gis artiste soxla ko mu naa ma sama ménager daa fuy daa ma ne la déedéet waaw waaye mais ba tey wu mais ba tey Ndiaye ba tey ci looloon dama ciy ñëw mhm. comme li mu wax léegi-léegi man am na ménager mhm. Pape Samba ma koy nuyu bu baax a baax ah ak suma waa staff dàq ko ñoom Papa Lawbeeg ñoom ñoom Tafa ah di di nuyu daaw da téer nga xamante ne nii lu mu ñëwul baaxul nekk ca gunaas bee te yàqu mhm. daaw du suma xarit la mooy mbokk mi ay Tafa bu ñëwee rek day rafet man ama am staff mhm. am ménagère muy Pape Samba ñu koy wax xat mhm. am na programme yoo xam ne xat la tudd yow li tax nit ñi di la mere duñ la woo maanaam li mu wax léegi-léegi nit du ma gaaw a mel loolu ndax bu fekkee da ma présenté kii xaw ma ko sama ménagère mooy mais yow koo miin yaay wax ak moom. koo xam ne miin naa ko. waaw ñu ñu yàgg. waaw non nag dama naan ménager bi toogal maay demal. loolu laa nangu nag Mara kii wax na lu ma nangu comme Mara li wax léegi léegi. Mm-hmm. tey bu fekkee Ndiaye xam naa ko. ma yebal fa sama ménagère Ndiaye danaan kii yëg na boppam la moo tax ñëwul ñëwul wala mu may ay ménagère su ko amee problème moo taxaw a wax ah, lan la man système bi may doxee bu ma yoree artiste sama mooy lan aasi woon na ma aasi sama jigéen la xaw nu may def ak moom dinaa la non amul benn problème je suis d'accord mais woolu manager bi rek parce que comme dama ko jiital ba pare bëgguma di ko fa xasal yow mën nga defar de telle sorte que waa ji du la mere mais dafa am loo xamante ne fi mu war a jaar foofu rek la war a jaar liggéey mooy lan artiste yi xam nga lan la am tëdd nelaw yeewu inspiré wu créé ménager bi ñoo ne la tel jour da ngay nga dem joué soo paree ménager bi li jënd sa cachet ñu fay la nga dem ñibbi mais li Papa Ndiaye wax léegi mënoo boole bëgg di xalaatal sa bopp di inspiré wu di kere ba pare bëgg di waxaalal sa bopp ay waaye nag loolu moom su ma suma ma su ma waa ma ciy liggéeyal waaw wax dëgg yàlla ndax man moom programme su ma ménagère da ñëw ne ma nàngam ak nangam rek mhm. daal di gis xale yi wax leen ko jours yi mu ne ma heure temps ngay ñëw heure boobu jot ma dem tëggi. loolu mooy loolu mooy su tasee mu jëla ma oto ma dem ñibbi. nga dem ñibbi man maa ko ñaan dee ci jàpp ngir ñi la bëgg. waaw waaw dama am benn dernière question. Mm-hmm. Euh, nee nga euh, Karbala sa xarit la. da ngeen di déggante souvent pourquoi yéen ñaa ngeen def benn affaire boo xamante ni Bongo Man su ko def euh, moom ak moroomam. yow yow nga def les premiers pas dem ci moom. ngeen am lu ngeen def. waaw loolu mun na nekk man rëyuma loolu. amul boobu. man man du ma nit ku rëy. du nit koo xamante ne nii damay am complexe si dara. man géejewaay laa juddoo falaa laa yoroo fa laa màggee. man dara safuma mëq naa sim naa def naa sa ak ma lëy. fi mu toll nii dara fere jeew ma ñeent ndax li ma xam a bari. maa fekkee démb te ñami nag te maa jomboox lu ma xamul. Eh, waaye loo xewle hmm? papa yaa may dégg. ndax nag. Hmm. gunaas gee ku fa juddoo doo tiit doo ragal. rek. yaa may dégg. Mhm. tey aw ma problème boobu Karbala bu dee mi ngi may seetaan mi may dégg tey dem ci moom ne ko nañ def benn affaire wala ci Babacar wala ci. keneen ak keneen non yow amoo problème boobu Karbala amul problème boobu. noonu la demee daam seen rek moom it nit ku baax la Karbala. mais est-ce que ñemente nañ est-ce que ñemente nañ noonu. est-ce que ñemente ngeen noonu. pour bongo maani. pour bo waaw parce que bu fekkee yéen a ngi tendance ante wala ngeen di sànnante ay pic. te moom fi la toog léegi ne lu ma soof ci bongo maani. waaw waaw mais mais nit ki li nekk ci yow xam nga tey ma sëkk ak ñoom jàmm te teewul lu nekk ci man dama koy wax nanu bàyyi benn affaire boo xam ne moomunu ko jékki-jékki ne moo ko moom ñu bàyyi benn affaire boo xamante ni créé wuñ ko xamul luñ ko créé daan lii sama yëf la ak nangam ak nangam te bàqu di dem ca làmbu ja jóge fay bàqoo ko gën dëgg la mais nag concurrence bi yéen daa métti ci yéen de parce que man léeg-léeg ma suivre seen direct yi ci TikTok dégg naa fi ñuy woowante ay bàjjanu gox ci ay eh! góor dégg fi ñu fiy woowante ay meeru natt ci ay góor dóoral ah dóoral ah dégg naa ko de. boo ko ci déggati dóoral. papa ma am na ku ci tuddee moom <laughs> dóoral ku ko ci dóoral. papa papa xam nga tey mosoo dégg nit ku bëggoomaan bu génn daane Modou Konté naa nga mag naa nga. yow newoo foofu nag. parce que sekkunu loolu. déedéet newoo foofu yow. yaa ngi dégg foofu. billaay wallaay. te des fois des fois ñu daje ay xewu ndakaaru mhm. dañ leen di fay fay ma. Mhm. te am na ñoo xam ne sax kenn du leen fay. wax day leer. Mhm. dañuy ñëw di force. non defal ndànk. non non non Euh, dëggantaan li ma kii di sonalee chaque jour dinaa ko jàllale tey. Hmm. papa xarkatu matt yi sonal nañ ñu. xar la xarkatu matt matt yi xarkatu matt yi tamit nag. bàyyi leen lan c'est-à-dire. xarkatu matt yi ñoom ñëpp bokk nañ ci nag ku nekk ngay wax gën a naan daf ñoo man man bokk man dinaa yéen Karbala Babacar yéen ñëpp dinaa leen ko kaasal tey xarkatu matt yi xam nga ñooy ñan. Hmm. gàddu sa bongo rek xëy dem Dakar. di wër programme mbaa bâche. foo ko gis toog ñëw rek Ndiaye ci loo nekk borom xew bi nu mu tudd ñu wax la turam nga toog ok te da ngay sin sa noole bongo man mu leer na ni kee la nu fay nga uuse toog toog ak moom. Mm-hmm. bu daggee nga dagg su woyee nga woy pour lan. di ko siif. yaa may dégg des fois nga ñu woo ñu woola ci defante ci koo xamante ni da xar si matt fayuñu la fayaanuñ la ngir yàlla waru suuri nit dangay ngay ba nu engagé la nay leer. Eh, am na ta noo c'est vrai. mais loolu def ko morso ba nu engagé la. waaw def ko morso. da ngay osé engagé la nga gaaruwaale xarkatu matt yëpp. xarkatu matt yi nañ ñu dimbali ngir yàlla ak yonent bi <laughs> ba nu engagé leen. waaw buñ leen fayee ngir ñëw si si fii ngir yàlla ak yonent bi toog leen seeni kër ñu woo la téléphone fay la junni yi bari dara dàkku ko ni da ngay osé aisé toog sa biiri kër Papa Ndiaye woo la jox la junni yi bari nga ñëw nii xarkatu mat yi wax leen noonu la ñuy def wax leen fii ak rek non yow boo dëgg la bu boo ñibbi kenn du la wax ñibbi da <laughs> wax na dëgg kenn du la wax ñibbi nag su ma ñëwee nga yaru mën hmm. naa yëkkati samay junni sax may la bu reewee soo reewee waaw du ma la teral boole ko barki Serigne Touba Mbacke di dëbb xew mi noonu ni ma ah. lay ñuusee di dëbb xew mi <laughs> def naa ko benn bëngoo man barki Alaaji Fàllu Mbacke ah. billaahi wallaahi wal kitaabi damaa ñëw muy saaf di jaayante ak man doole mm. xam nga nu ma ko dumaa ba muy ñibbi gisuma ko mm. billaahi bi ma teglee ñaari siis écarté yëg bi ma écarté taxaw si ñaari siis taq sama ndigg ñaar ñuy jàpp ma ci mbës ak talmat beeg ñaari bongo yi ma wax ay bal barki Seydina Muhammad loolu moom preuve lañ bëgg mbës mi nu ngeen ko booy tàngal xaaral ma ñaari tàngal muy ñaari tàngal <laughs> parce que am euh. loolu nag soxnaa koy gérer muy riyaat ak Fat Faye monsieur le maire mm. Modou Gueye Modou Gueye waaw borom yaaja agro kooku ma ee eh. kooku mooy borom yaay Modou Gueye borom AS Pikine waaw ki nga xamante ni moo jiite jigéenu Pikine jëli mm. moom laa lay booleel fu mu jëm nga dar ko xam nga kooku moo bëgg jëkkëram jigéen ju mën góor am yërmande baax ca gëntëri si am moo si sëriñ Modou Gueye waaye nag jëkkëram jëkkëram day nit ku baax mm-hmm. day nit Modou Gueye du nit l'homme